waaw salaamaaleykum di leen jëfalaat yéen ñi nga xam ne yéen a safo clinic events xanaa di leen euh, tàgge benn naqar bi nga xam ne moo tàbbi suñu kaw Hakim ñu gën ko xam ci l'ambassadeur 224 moo ñàkk soxnaam tey ji ci alxamis bi dëppook ñaar fukki fan ak juróom foofa sa parcelle Hakim ñu gën ko xam ci l'ambassadeur 224 tey moo ñàkk soxnaam foofu sa Parcelles Assainies xana di ko massawu te di ko jaal xanaa di ko ñaanal fa mu jëm yalla mu dakk fi mu jugge te di ñaanal jëkëram joju yalla nako yalla may xolub muñ di leen ko tagge te di leen ko jalle bu baax te di ko jaale askanu rawatina mom akim ñu gën ko xam ci ambassadeur 224 ñu ko koy jalle bu baax soxnam soso nga xamne moy ummi daan and ak mom lu bari ci vidéo yi mo ñak bakanam fofu ci parcel xana di ñaan yalla rek yalla na xippee aljana jërë ngeen jëf yeen safo clinique events ñu ngi leen koy jalle وحول الهاشمين تجمعوا وخلفي جموع